طبيبي قريب هل سقامي تسمع asalaamaaleykum mbokki internetu Dakar Live TV nuy naa leen bu baax a baax ziar leen comme ni ñu koy defee saa su nekk euh, fàttali leen nag ni ki tey jii Dakar Live daal dina ñëw ci diwaanu Louga euh, ngir waxtaan ak askan wi nga xamante ni ñoom ñoo fi yeewoo waxtaan wi nag dañu koy tënk euh, séddale ko ñëpp ñu nga xamante ni ñoom ñoo fi yeewoo dinañ seeti chauffeur yi seeti ñi nga xam ne ñoom ñoo yor sareet yi seeti cak-cak yi dem ba ci bus yi ak sénégalais yi nga xamante ni ñoom itam ñooy romb te dëkkee ci diwaanu luga xam ngeen ne ab l'accident bu métti moo fi daal di am ay doomi aadama ñàkk ci seen bakkan Euh, tax nag Dakar Live daal di déplacé wu ñëw ci diwaanu Louga ngir waxtaan ak askan wi ci biir loolu nag damay ànd ak sama caméraman dem ci senegale yi nga xam ne ñoom ñoo yeewoo ci diwaanu Louga ñu wax ñu seen xalaat ci accident yi ak lan moo koy waral euh, ay ca sama caméraman euh, topp ma bu ko defee ma daal di ñëw ci askan wi laaj sëñ bi maa ngi lay nuyu baal ma nga wàcceel ma verre bi ci loone sant alhamdulilah tur bi naka la Babacar naka nga dundee accident bu métti bu am ci diwaanu Louga. waaw ah, métti trop métti na trop wax dëgg yàlla métti na trop trop trop trop trop sax ah safoo nañ daw nànk rek ah, même suñu président bi tamit heure bi mu ko def nii dafa métti cinq heures du matin si poste buñ jógoonoo ñëpp ay daw xel yu métti bëgg dem day naa oto yu bari billaay da ngay mujj sax teggi tànk man dama naan daw ma léegi maa tiisi tali ma dematuma fenn. wax dëgg est-ce que gisoo yi ñu jël mën naa indi jëye ci réew. mesures yi ñu jël wax ni oto yi dañ leen di arrêté 23h ba 5h du matin est-ce que mënul yokk accident ndax njëkkante moo métti moo tax la expliqué sànq boo téyee oto 5h nga téye mat pile 58 oto ñu war a dem Vélingara wala ñu war a dem Diaobé ñu jógandoo dawandoo pour arrivé na woon njëkkante ay clients loolu mooy indi jéey yi meeg Euh, ndax gisoo ni tamit mécanicien yi am nañ ci wàll parce que parfois dañuy wax ni oto su bëree mécanicien mën naa jaxase sa ay fil est ce que tey loolu ñoom itam amuñ ci wàll. non loolu moom gëmuma ko quoi paan bu ñëwee ñëw na rek incident yi léegi lu war am day am rek loolu daal laa xam sama xalaat bu gàtt quoi. pour lan mooy solution bi. ñu tey wax suñu mbokk chauffeur ñu daw nànk rek loolu mooy solution bi ñu daw nànk def nànk président ma xoolaat mesure mu jël ñu xool ni ko mooy modifier quoi mooy gën quoi. noo gisee taxawaayu Mansour fay moom mi nga xamante ne moom lañ jëm dénk ci lu jëm ci wàllu transport. non rafet na trop franchement ndax dem gi nga soog bi même pas deux heures de temps ñoom indi nañ si hélico ñu jël évacué na trop franchement am na solo bu baax. ok jaajëf merci. Euh, ba ba tey dañuy dañuy sëñ bi maa ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay. jàmm baax baax. ñoo gisee accident yu ñu nemmeeku euh, ci diwaanu Louga mu nekk lu métti ay doomi aadama ñàkk ci seen bakkan. waa accident bi ñu ngi masu masu ñi nga xamante ni si ñoom la seen mbokk wàññeeku masu Sénégal gi di leen jaale te wax ni metti na ndogal yàlla ndogal yàlla nag euh, kenn mënu ci dara ndax li ñàkk moo gën moo ëpp doole fuuf euh, li des xanaa di wax safoor si ñu gën a nekk prudent moytu euh, yenn accès de vitesse yeeg yi xoolaat état oto yeeg yooyu daal waaw. yow client la euh, client nga comme ni ñu koy waxee yaa ngi nekk ci yoon euh, est-ce que jamono ji sa fit dal na comme ñenn ñi nga xamante ne dañuy faral di wax ni ñoom seen fit dal. waaw man sama fit dal na parce que man xëy na maa ngi dem oto laay jëli nii chauffeur laa ci laay liggéey ndaxte oto moom boo sogee ci oto ci oto lañ lay yebaat vraiment metti na. ñaawlu nañ ko mais ndogal yàlla ndogal moom bu dalee suñu kaw dañuy nangu rek waaw dañuy nangu matal la ko matal da ngay dem ak façon bi ngay demee quoi. Ah, yow nga noo jàngatee toor bi ñuy teg seen kaw. waaw xam nga toor bu amee ku nekk ak version bi ngay waxee mais boo xoolee xëy na côté chauffeur bi fóot am na ci côté état bi maanaam ci état tali yi tamit ak ni ñuy délibéré carte grise oto yeeg. permis yeeg yooyu yëpp si wàllum maanaam wàllum état tamit fët am na ci ñaari côté yëpp la ko nañu xoolaat rek nu ñu waxtaanee ba mu gën a kii quoi. amoon looy wax état ci wàllum tali yu xat yi na nag pax yu bari yi ak rang-rang waaw xam nga maanaam oto yi tali yi xataay na xataay boo xamante ne si da gis oto day bëgg moytu dara pour mu pi pi côté jëm benn côté sax problème ndax garab yi sës nañ tali bi des fois tamit pour nga cëppeelu benn côté. tali bi day def genre day fay def pax ci boor bi bu nga mënee ràmbale yokkaat tali daal dañu nu gën a gënal quoi dañu gënal vraiment ak borom jur yi nga xamante ni borom mbaam yi dañuy bay bu nooree ñu bàyyi mbaam yi ñu dem fas ñu dem tamit ñu xool nu leen di kiiwee ko parce que tamit bay ci mala ba pare bu nooree nga bàyyi ko mu dem ci tali bi indi ay jéya nga lor ci ay doomu parce que soogu Louga boobu ñuy wax ñu ne mbaam moo ko kii tamit loolu borom mbaam yi am nañ ci part de responsabilité vraiment. Mhm. ñu ngi tam la moo ciy sa kàddu. sama kàddu xanaa mooy. ñëw foofu ayca lan moo ciy sa kàddu tey ci accident bi nga xamante ni nemmeeku nañ ko ci diwaanu di masawu ñi ci seen i mbokk bokk rek ñi faatu ñu ñaanal yàlla suñu borom xare leen àjjana. àdduna nag dafay ànd ak noonu ay dawalkat ñoo bari mais bariwut ay safoor yi tax ñuy wax safoor bariwut. je pense kenn ku ci nekk boo xoolee accident bu nekk bu muy am. bu fekkee safar bi dafa wax aqulaay taalaam amoon ay solution yu jiitu avant muy daal ci loolu muy dal muy bi njëkk am ak bi mujj am foofu nag dafa am kenn ku nekk am nga ci part de mooy donc état am na ci part de responsabilité chauffeur bi dawal it am parce que li ci état part de mooy am na oto yoo xam ne 1974 fekk na leen ñuy daw jusqu'à présent ñuy daw kon soo toogee di wax ay mooy de huit ans te oto yooyu ñàkk nekk état moo tax parce que bu dee diggante oto yi benn bi mooy màggat na beneen bi ci des mooy ay xale leen di yor transporteurs yi sax dañ ci am part de responsabilité parce que transporteurs yi joxatuñu chauffeur yu mag yi oto yi xale yu ndaw lañ koy jox ñu amuñu maîtrise bi oto ku la koy jàngal wala ku lay jox oto na la demal ñaar mooy nga njëkk war a njëkk am mooy réflexe rapidité réflexe bi ak rapidité mooy dawal oto donc loolu ne xaw na paan tout xam ko manqué ñun chauffeur si euh, bi ci des mooy état ni taxawee ci oto yi ba oto yi di am sécurité des na parce que oto yi am na ci yoo xam ne bon visite technique léegi niñ koy amee yomb na oto bi du mën a am frein yu baax bi ci des mooy tali yi ñu ngi wax nag état bu amee mun a sëfoor si d' accord parce que moom sëfoor si la mën na xas mais moom est ce que de responsabilité mu ngi koy def mooy lan mooy tali boo xam ne matut 8 mètres matut 9 mètres nga boole ci ñetti ñaari oto yoo xam ne benn bu ci nekk war naa ma 2 mètres 50 ñu war a rombante su jëyee amee fan la nit ki am donc tali bi mënoo cëppeelu donte première nga def boo koy wàcce danga koy yoor ndànk di ko yoor kon ça veut dire boo defee troisième donc boo dara amee nan ngay wàcce mënul nekk pour waa fi mu boo gisee sogu bii mu jam démb waa ji gauche la dem pourquoi demul droite je pense que soo oto bi day cëppeelu mu bañ bi doon daanu mu doon dem droite foofu am na erreur chauffeur mais am na erreur état moo indi sa erreur chauffeur bi nañ koy nangu mesures yi mu jël nag teg ko ci kaw chauffeur si dina ko def xamul tax parce que chauffeur lañ wut fii ci Sénégal chauffeur lañ xamul mooy kan mais même président de la république même porte qui chauffeur koy dawalan chauffeur bi ko dawalan am na retraite am na IPRES am na santé dañ koy faj yoroog njabootam garanti leen lépp pourquoi léegi kon chauffeur yi ci des bu ñu amoon responsabilité boobu du yow bu ñu la joxee oto di nga daw sa teeyu bakkan mais mënoo am salaire cinquante mille francs te chaque semaine nga yot borom daanaka lu jege juróom benn fukki junni wala juróom ñeent fukki junni di moins que euh, bëgg a liggéey ak tranquillement mënul ne. pression boobu da di jàpp ba bu ñuy dem lépp seen bopp ci xel lay nekk gaaw a dem pour mën a jox borom oto bi lim laaj man cee am dara kooku kon état am na ci transporteur bi am na ci chauffeur bi doog a ñëw léegi nag loo am lépp dañ koy yéen ci chauffeur si chauffeur si ñoo amul ndey chauffeur amul embossement chauffeur amul retraite chauffeur amul oto bu baax dina ko jël parce que métier am la chauffeur du toog annoncé ko foog mu jël oto boobu mais oto bi nekkul li mu war a nekkee état bi mu taxawee pour di régler ko yomb na dañ lay wax na la chaque jour nga dégg ñoo la ministre diw wala député diw wala président diw jël na centaine de milliards yoo xam ne xamuñu fu mu ko def ci ci poosam pourquoi ñun li tax tubaab yi dem nañ ci réewi tubaab yi xam nañ li tuddee réewi tubaab yi li mu laaj tubaab yi pourtant monté wuñ comme ñun ni suñu alkaati di monté pourtant li xew ci ñun xewul ci tubaab yi parce que dañoo jël ay centaine de milliards def ko ci ay radar suñ la xoolee ngay daw loo xam ne waroo ko daw parce que dañ ne diggante Louga ak Saint-Louis la ñu ne la waroo fee daw lu mu boo dawee quatre-vingt-onze donc radar bi fa jàpp euh, signalé la ñu wax routière bi routière bi arrêté la daw dab la arrêté la fay la loo xam ne sa salaire mënoo ko cee fay ñaari yoon ci weer wi da yaru noonu la tubaab bi di liggéey donc bu dee Sénégal nag da ngay def ay conneries ba dara am ñu ne assurance te assurance image de toi assurance kan moo fay assurance fayul kenn sooy dawali dem amoo assurance ñu jàpp la fu réer la. boo amee sa oto sogee sax wala accident bii nii tey du yéen a di di dem na ngeen topp dossier yi am kaay quarante quarante nangam yee dee ak dix-neuf yi dee fii fii ak deux cent trois cent ngeen topp ko ba xam ban kan moo ci fay ko assurance ku assurance di fay. d'accord euh, yéen da ngeen di fay assurance ci ci risque kon. dañuy fay assurance ci pour bañ ko ñu jàpp déglu baax li ma la wax xam nga risque mooy assurance moo lay jël tout risque. mais ñun dañuy fay ci assurance pour bañ ko la jàpp parce que soo ko manqué ñu jàppale ci mais soo ko fayee ba jëyee am sa oto soge donte kenn déewut doo fayee ko donte nit day dee niiw na nga gis ko assurance man ma yàgg naa di di dund ci réew mi xam li fi ne mais gisaguma ko assurance fay lu tax ñuy wax Europe sa oto donc am na lu soog bu muy soge boo xam ne boo demee ci tôlier bu dee Europe la bu la dalee boo demee tubaab bi daanaka bu ñu la fayee assurance nga gaaree oto bi mu jëndiwaat benn oto kon état moo njëkk am poids de respect parce que ku yor sa kër nag pour kër gi normal nag yaa war a normal boo normalee kër gi normal mais boo normalul kër gi mënta normal. bu déggee fi ngay euh, yi lu ci mel ni njaganjaay lu ci mel ni car rapide ak lu ñuy woowee oto mbaar jàpp nga ni waratul exister. buñ ne oto mooy de huit ans warul daw oto mooy de huit ans amul dix ans wala maximum huit ans lay am léegi nga jël njaganjaay boo xam ne wala bi sept euh, place boo xam ne mille neuf cent soixante-quatorze fekk na ñu miite ko muy daw. ñu ne la oto boobu war naa mën a daw mais oto bi amagul fukki at bi am fukki at mënut a daw yaa am problème nañ dem ci sous région bi waxuma la Europe waxuma la France waxuma la Italie waxuma la Espagne yooyu ñun xam nañ ne mi fonctionné parce que dem nañ fa mais demal ci sous région bi demal Maroc demal Gambie gii nga xam ne moo ñu ñun ñoo koy dimbali ci lépp cest dire oto yoo fa nekk boo leen gisee bokkut ak oto yi gis nga bu ñu libéré woon nit ñi ñu am accès ci mën a am oto bu baax te duñ la wax ay moyens de huit ans yooyu oto yi manqué di jóge fi parce que oto boo xam ne sa quatre freins yëpp mënul jàpp maa yow mii oto yii daw nii ñooñu mag suñ yaay bi ñu ñëw suñ kër papa yi sept place leen indi woon ba tey yow booy dem des fois sept place ngay dugg sama oto bi xam nga ñu ko tuddee war gaynde pourtant war gaynde bii nii as bi mu am ak ni mu amee confort di moins que amewul noonu donc pourquoi kon sept place bi ñu waruñu mën a fexe ba sept place bi am xam nga lu ñuy def état na toog waxtaan ak jaam ñi bi mu jël ay mesures dafa toog rek xalaat bii si bu leen nee day dindi seesi loolu xalaat ku ñàkk xalaatu koy wax bu nee day dindi porte bagage dajaleel quarante personnes yu jëm Fuuta kenn ku nekk yor walis ndax xaj na ci maalu oto waxuñu porte bagage mën naa nekk mais nañ ci bàyyi yenn bagage yi nga xam ne xam nga oto bi jëm Fuuta wala oto bi jëm Tamba wala Kédougou wala Lénkiri wala Diaobé wala Ziguinchor dafay dajale ay bagage yoo xam ne i borom ay magasin lañ yor toog Dakar woote ñu jaay leen ko indil leen ko tegal leen ko ci loolu lañ war a interdit na nag oto buy yëpp am nga droit yor porte bagage mais na fa nekk akub saak. mais yenn ci ay oto euh, ñoom bu ñu yóbboo client ak bagage dañuy yóbbu ay ay yóbbante te itam euh, nemmeeku nañu ñu ne euh, porte bagage yi lu ñu fay teg chauffeur yi ñoom ñoo koy séddoo ak emprunté. non emprunté séddoo wuñ dara. chauffeur bi séddoo wul dara xam nga chauffeur bi lañ cey teg lu muy demee versement yi yi yi mu war a yóbbu ca borom oto bo transporteur bi nga xam ne Sénégal transporteur yi motuñu deux cent personnes cent personnes boo ko ci génne ci transporteur yi mu jeex chauffeur yi ay fukk di dem. askan wi dem ay million lañ kon nañ farataal nañ gën a fulaal ñooñu je pense que li ñu cay teg loolu mu versement la parce que client bi dem fayatuñu man nag sama xalaat su doon syndicat yi ñoom ñooy déggante du ñu gerew dañuy dindi seesi dindi porte bagage yi client yi bu ñu ñëwee boo yore bagage ñu ne mënuñu laa parce que état ko tere après état moom dina seet solution ci ñooñu. kon grève la d' accord non d' parce que état mënoo grève ba mu arrière ci li mu bëgg def. parce que bu fekkee ne loolu la kon état dama lay wax ñun on est des te réew mii lañ fas yéene tekki incha allahu rabbi demuñu Angleterre demuñu dañ fay dem buñ fa dee dem dañ fay doxi soxla ñëw fu ñu dem ci àdduna a tekki kaw ça veut dire a ñoom a xuma ci a def nii def lañ def état toog rek xalaat moom lii la bëgg def rek appliqué ko ñoom it dañoo toog ne ñoom it lii mooy fas seen soxla ñoom it ñu appliqué waxtaanu ñoom it da waxtaan yaa ngi nii da ngay man est-ce que da ñëw forcé ma ne ma nangam ngay wax da ma maa moo teg wax sama xalaatu bopp am réew dañ koy waxtaanee nañ wax état dañoo kaay ñu toog waxtaan parce que li nga bëgg mënul ne mais su ma nee nekk dina métti ci yow dina métti ci askan wi ñoom li leen état teg bu ko defoon xam nga ci ku muy métti du métti ci ñoom de ci askan wi lay métti parce que bu ñu dindee séesi waa attends pourquoi bis buy wut buy wut buy buy buy dem di jóge ñëw ñu koy dagg war ko defal ay séesi kan moo lay jox moo leen di jox catégorie bi am nombre de service bi pourquoi bu ñëwee du xool oto bi yor mètre natt oto bi ñaata mètre la mu xool diggante seize bu ne ak seize bu ñaata mètre la war doon na oto bi temps de la war am kon bu ñu ko defoon maanaam liñ ciy xalaat ni du ci am kon weer saay du mais xalaatuñ ko donc Sénégal réew la daal moo xam ne ku réew la mañ gën a rafetee jasineer wala gën a rafetee costume yow lañ gën a diglu kon ni ki borom xel mu dof mi mel ni comme man nga xam ne Baay Faal lañ mais ñi mën a dox réew ngi ci réew mi suñu di dox état ñu bu defee a laaj ñun oto lañ xam oto lañ yaakaar yéen nañ yàlla defal jàmm nag may ñaax sama mbokki chauffeur yi nag nañuy gën a teey di prudence di def ndànk parce que suñu teraanga ci la nekk ñu yàkkamte mais bis bi la ah, moom dafa ni dafa dafa ay bagage ba fees dell ndax ay saaku la jël dajale daal di takk lu ci sa jàngat laata ñu tàgg loolu moo lay wax na la li wax bëgg mun ne xam nga yaa deux jours ci ginnaaw boo xoolee bis bi bi yi fan yi ci ginnaaw yaa ngi bu ñëwee ci montage dañ leen di téye na leen bagage yi tey ñu tax ñu ba leen parce que ñoom ñu ngi ñii dig nañ leen ab te garab bi dafay xaw a am lu mu def ci ñoom tamit ça veut kon foog ñu yàlla man ji ma waxtaan ci suuf donc état pour mboolem muy wax dafa war a càmbar muy wax nga xam ne su dee bëri di ko appeler ko da koy appeler a bout mais boo waxee ba pare doole doxut da ngay xalaat ba pare am xel la nit ñi àdduna soxla yàlla bi muy wax ak ñun xam nga yàlla moo gën a foor état moo gën a foor nit mais ne bi muy wax bi muy wax dana mën a wax ak borom xel yi. kon c'est très important ñuy xalaat yéen ñi ay borom xel ngeen nañ leen di jël ngeen laaj leen parce que xam ngeen li xew ci réew mi yéen leen yàlla defal jàmm tawfiq ak euh, jërëjëf am na am na solo yaakaar naa ba tey ah ñu continuer euh, dem ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di euh, mécaniciens yi ñoom itam ñu daal di wax seen xalaat salaamaaleykum sëñ bi dafa mel ni chauffeur nga maa ngi lay ziar. man du lan ngay liggéey damay réparé sama oto. d' noo jàngatee accident bu metti ba am ci diwaanu Louga ñuy wax ni ab ab ab mbaam moo ko moo ko daal di waral tey ban jàngat nga nga ci am. waaw ah, xanaa lu doy waar rek lu metti te ñu jéem a xool nu ñuy organiser affaire yi daal ba mu gën a jag maanaam ñu yor mbaam yi ñu téye ko waaw chauffeur si yéen ñu def ndànk daal waaw loolaa si amul lu wax. est-ce que ni tey état am na par de responsabilité ci mbir mi euh, ndax mbaam yi nga xamante ni à tout moment mën nañoo jéggi indi beneen jëye ndax jàppoo ni tey ñoom itam war nañ ci am taxawaay. waaw war nañ ci am taxawaay tëli dafa yaatuwul daal mën nañ ko yokk bu mu gën a yaatu waaw chauffeur seet def ndànk loolaa si amul lu may wax. mais accident yi tegloo yi tegloo yi noo ko jàngatee. ah loola euh, mbiri suñ borom it ànd na si ak lu yàlla dogal daal waaw nan moytu daal def ndànk waaw waaw. merci beaucoup euh, ba tey ñu continuer ah, dem ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di euh, mécaniciens yi euh, sëñ bi maa ngi lay nuyu yaa ngi ci liggéey bi de. maa ngi ci liggéey waaw. ci loo nekk yaa ngi ci jàngatee accident yu métti yu am ci diwaanul Louga. <laughs> accident yi. ah accident yi de soxna si xam naa ne moom affaire kiila la rek yaa ma gën a xam waaw affaire suñu borom la rek dañ koo bëgg a jiiñ sëfoor yeeg yooyu rek. waaw dañ leen koo bëgg a ñu affaire yi moom mala yi la mbaam yeeg gileem yi la ñu war a jëlee si tali bi képp ku yor mbaam ñu boole la ak sa mbaam tëj nga bañ a génnati loolu da laa xamee man. li ñuy wax ni euh, mécanicien yi itam am nañ ci part de responsabilité parfois parce que dañuy jaxase ay fil oto di daw ba yàgg di tàkk ci digg tali yeeg yi loolu moom amul loolu moom gars yi dañuy wax rek ah ñun de suñu garage duñ ko def bokkuñu si de ñun de wax dëgg yàlla moom fii moom. heure bi ñëw daañu la liggéeyal li ñu nga dem waaw mais ay jaxase ay fiil moom wax dëgg mu fi waaw. d'accord nga ne tey li nga bëgg mooy état euh, képp nga xamante ni yaa sa mbaam mu. traversé baykat yi mu boole léegi si yaa ak sa mbaam nga bu mbaam yi génnati boobu yor sa mbaam nga téye ko di ko dundal si biir kër man loolu laa gis ñii ñëpp ay baykat lañ. d'accord pour loolu mooy solution. waaw mooy sama solution de. tey boo amoon message booy lancer état lu muy. bii suñ bëgg dindi lu mbaali bu mu ko nangu. bii si na leen bàyyi ñuy takk mbaal di liggéey di yab di dem waaw porte bagage boo ko dindi si oto lu muy dese ay siis loolu mun njëriñ waaw. mais est-ce que yu ëpp yi tamit euh, mënul indi jéeya ndax oto bi dafay. non non chauffeur yi xam nañ ni ñu dawale barke rasulullaay oto lu mu gën a niis diis gën a toog oto oyof oyof moo si gën a diis day gën a toog waaw. pour njiitu réew mi Macky Sall kay amul lenn la lu dul mu bàyyi oto gars yi ñu liggéey waaw ok waaw merci waay. mbaam waaye de mboobal naa ko ba yàgg ba yeew naa ko waaw waaye nag borom mbaam yi amuñu xont mënuñoo yeew mbaam nañ bàyyi mbaam ñu wëri yi code yi nañ def ndànk booy jéggi code bi xool ni ngay mbaal yi nag nañ leen bàyyi noonu nag gars yi yëpp. ñu bàyyi ñu yëpp waaw. <laughs> yaa ngi ci jàmm ah? naka mu. kii sant baax la la. gàdd kan. noo jàngatee accident yu metti am ci diwaanu Louga. waaw ah, doy na waar lool da wax dëgg yàlla doy na waar lool di ñaan yàlla suñu boroom yamale ko fi rek. ñi nga xam si ñoo dawlu yàlla suñu borom yërëm na ci jéggal wax dëgg yàlla metti na lool waaw ndax koy bokkal di nekk lool ba xëy suba nga gis lu ko dal day metti lool waaw di wax it wax dëgg yàlla mu gën a góor góorgóorlu taxawu ndaw ñi waaw ci liñ soxla yelloon nañ ko lool wax dëgg yàlla ndax ku sa ku sa loxo jut sa ginnaaw dangay ngay wut wàllu te mooy suñu yaakaar quoi ñu ngi koy sàkku ndimbal bu baax a baax waaw di ñaan yàlla suñu borom def ci réew mi jàmm ndaw ñi nga xam ne dañoo soxla yàlla suñu borom jox leen te ñu gën ci ñoom waaw wax dëgg yàlla soon nañu wax dëgg yàlla. ndax yow cag-cag nga war fii ci Louga. non man ab carreleur laa quoi damay karo waaw carreleur laa mais tamit ñëpp ay mbokk lañ ñëpp ay Sénégal lañ ñoo bokk benn fu ñu fu ñuy yeewoo quoi ñii dañuy xëy jëm ni ñuy xëy jëm nii rek waaw ba ci yéen ñii sax yéen itam ñu leen di ñaanal jàmm bu baax ndax yéen tam yéen seen seen yoon di dem bu yéen sañoon it li ñëpp di am ngeen am ko bu yéen sañoon seen réew moo gën ci réew yi ndax lii da koy wone quoi ndax di leen bàyyi seen yitt yëpp ñëw di taxaw askan wi nekk ci route bi di leen taxaw bu baax a baax a baax. d'accord yéen leen jafe-jafe ci ci ci wàllub yoon euh, yéen ñi nga xamante ni yéen a yor moto yi ak borom waaw si am na kay parce que parents yi dañ lay teg yoo xam ne si daanaka am doo comprendre man maa ngi nii maa ngi jëm côté pot nii gis nga damay sol sama casque damay sol sama lépp. moto demee ba Pout. waaw damay moto bi laa demee Pout parce que kenn ko ne li nga am moom ngay demee marché quoi ah daw ndànk rek affaire moom code de am na mais xel xel xel xel mooy dawal xel mooy code de la route parce que nit ñi dañoo matadi di ngay gis koo xam ne day xëyee këram am lu ko naqari xam nga koo matul yow mi nga xam yàlla suñu borom daa def nga am ak dal am xel yaa koy mottali xe tëlibét xatul xol yi ñooy xat parensaa yi loolu lépp dañ ko war di sóoraale bu baax dañ yor yar ak tegg ñun ñëpp wax dëgg yàlla di ñaan jàmm suñu réew wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaan bu baax a baax a baax jërëjëf ay ca euh, voilà mbokk internetu euh, Dakar live ñu ngi fii ci diwaanu Louga euh, dégg geen sénégalais yi kàddu ñu yëkkati borom moto yi ak ñi fi dëkke dañuy daal di dem nag ci ñi nga xam ne ñoom ñoo yor bus yi ñoom tamit ñu daal di wax seen xalaat ci li nga xamante ni moom moo di mbir mi accident bu metti daal di am ay doomi aadama ñàkk ci seen bakkan ñu fas yéene dem ci chauffeur yi ñoom itam ñu daal di addu ci mbir mi sëñ bi maa ngi lay nuyu. maa ngi lan nga. Euh, tey accident yi am ñu am ay mesures yu nga xamante ni jël nañ ko wax ni porte bagage yi dañoo fas yéene ngir daal di koy teggi ak ay Versailles ban jàngat nga ci am. porte bagage yi pour euh, ñu bagage yi mënul ñàkk ndax moom kuy dem force nga dem yóbbu sa bagage moo ko mënul ñàkk wax dëgg yàlla. mais yóbbante yi nga xamante ni dangeen koy faral di yóbbaale ñu jàpp ni yóbbante yi dafay diis wuute ak yi clients yi di indi loolu itam ndax mënul créer ay problème bagage bagage bagage moom mënul ñàkk yóbbante mënul ñàkk ndax moom kuy dem force nga yóbbu say bagage mënut a ñàkk waaw. mais est-ce mu gisoo ni mën na indi jafe-jafe euh, ci yenn maanaam oto bi gën a diis yokku poids. non loolu moom boo gisee poids moom mënut mën naa ñàkk bu fekkee yenn bagage mu kaw ci kaw loolu moom mën naa ñàkk waaye bu fekkee ni bagage yi la moom amul benn problème. waaw Versailles yu ñu wax ni dañoo bëgg ñu teggi ko ci oto yi noo noo ko jàngat. non Versailles moom mën na deñ waaw moo ko moom mën na deñ moom waaw. waaw. Euh, mesure yu ci président Macky Sall jël wax ni euh, oto yi dañuy daw 23 arrêté daw 23h euh, ba 5h loolu moom d'accord ma ci waaw loolu ah non damay xaar bu événement amee loolu xam nga loolu boo fekkee loolu dem problème mu yi lay doon jëm te client yi fayuñu. moo ko yi moom fayuñu moom euh, kon 5 heures du 23 ba 5 heures du jàpp nga ni loolu du yoon. non non du yoon waaw. li wax ni chauffeur yi maanaam parfois dañuy ñàkk yar ci kaw tali bi est-ce que loolu réellement dafa fa non du loolu moom du chauffeur yëpp nag chauffeur nit ñi bokk nañ ca yemuñu moo ko doomu aadama ñëpp bokk nañ ca yemuñu moom waaw. kon toor bi ñu teg seen kaw. Hmm? toor teg seen kaw kon jàpp nga ni du yoon. ma doomu aadama yi ñëpp laa bokk ñu yem ndax ñëpp foo dem rek. peñe guro boo gis rek am na bu sànkar loolu am na ci. nu ngeen di jànkonte ak mbaam yi wala li nga xam ne moom moo di ay bëy ak di di jot génn ci tali yi noo leen koy dundee. ah ndànk rek def ndànk rek def ndànk rek dong nag waaye. ñaata chauffeur ñoom ñoo nekk fii ci diwaanu. chauffeur moom wax yàlla moom mënu mën a nangam nañ moom. sa bus ñaata chauffeur ñoo fa nekk. kan. bus ñaari chauffeur. est-ce que yéen ñaa ñëpp âgé ngeen yow moom mag nga mais keneen ki topp ci yow ndax mag. ah non kooku mag sama kaas la rek waaw. boo amoon message booy lancé euh, njiitu réew mi Macky Sall lan lay doon. Macky. boo amoon loo koy wax ak Mansour Faye moom mi ñu dénk wàllub transport lan lay doon. waaw loolu moom waaw waaw. mat Macky Sall lu ma wax. ci transport. ci problème transport. pour ci la lu demee nan. am na beneen chauffeur bu bëgg a addu sëñ bi ñu ngi lay nuyu. waaw Samba Thioune. Samba euh, yi nga xam ne jël nañ ko ak accident yuy am ban jàngat nga ci am. ah xanaa métti rek te lu xew ñu ne chauffeur yi la te chauffeur duñ ci dërëm yàlla mi ngi téem xam na ko ay chauffeur chauffeur yi waral soog bi fee bi tax ñuy wax chauffeur benn chauffeur bi maa moom ñoo bokkoon benn empr nekk emprunté wu. ba keroog mu am transport daw na Fuuta daw na Mali ba ba foofu muy daanoo fa la mujj da horaire la ubbi woon foofu du tux du naan man xam naa ko bu baax a baax te lu ne dégg naa ko ci te kooku du tux du naan borom njaboot la am na soxna am na ay jaboot seen chauffeur bi moo Pam Moussa Pam Moussa moo non du Kanko musaa Pam musaa keneen ki Pam Moussa la tudd mooy ku sew ki ku ndaw ki kooku Pam Moussa la tudd xam naa ko bu baax Pa Moussa Seye xam naa ko bu baax. Mbour ah? moom moo dëkk Mbour xam naa ko bu baax. affaire yi nañ ko oyofal rek ñu jàppale ñun chauffeur yi nañ ñu jàppale te xam ne ñun amul kenn kon man mii di wax ak yow nii Fuuta laa la laa gontee démb trois heures laa gont fan nga ma fekk nii Louga fan laa fanaan croisement Richard Toll laa fanaan fa la ma vingt trois heures jotee ñu ne ma doo dugg ci biir reer sax de ja kilaaye jaaruñ ci nga dégg nañ teggi affaire 23 heures fu la fekk boo ñëwee ba ci dëkk nañ la bàyyi nga dugg ci dëkk bi clients yi wàcc mën a reer ñi bëgg a julli julli comprendre rawatina nag même bu dee Versailles yi porte bagage yi na deñ mais nañ yokk paas bi wàññi gasoil bi. est-ce que du ci askan bi. day métti ci askan bi ñoom transport boo xoolee ñun transport yërmande kese lañ ciy doxe parce que tey ji yow dama lay fekk ci arrêt bi Louga xam nga ne xam nga ne juróomi téeméer mooy paas bi nga ne ma garant dimbali ma ñetti téeméer kese laa yor ma jàpp yeb la te yàlla rek a tax. yaa ngi léegi ñoom ñun compréhension boobu noonu yëpp nit ñi amul luñ ko bu toor amee rek dañ naan chauffeur yi chauffeur yi yaa ngi dégg nañ dawal ak ñun yërmande jàppaleñ te ñun ay ndaw lañ man maa ngi nii ma lay wax nii oto bi maa ngi ko yor nii xam ma ñaata at laa ko yor ci tey màggalu daaw la waaj yoruma 1500 yi ma moomal sama bopp boo demee sama kër amul lenn looy war ni nga ne ma nga ne kii maa ko tabax wala maa moom lii. kon yéen chauffeur yi euh, seen bopp ci. 2013 laa am transport 2013 yoruma xar bu ma moomal sama bopp. yàlla mi 2013 la am permis laa la wax laa am permis transport laa commencé embauché. kon su ma oto yi ñoom ñoo ci am dara waaye yéen amoo leen ci. ñun amuñu ci dara ñun chauffeur yi ñoom grève transporteur la mais du grève chauffeur waaw grève transporteur la ñun chauffeur yi ay màggati chauffeur kese fi toog te màggati chauffeur yi ñun ñii ñooy nii ñun ñun ñooy dund ak ñoom suñu jaaree fi yëkkati suñu 1000 francs wala yëkkati suñu téeméer jox leen pourquoi pas état bi mënul ñëw xool. wala ay xool ay ndaw yoo xamante ne ñu ngi nii récupéré jël leen ci état bi ñuy liggéey wala ñu wutal ay oto tey Macky Sall bu jëndoon ay oto yu bees poul du ko jox chauffeur transporteur bi yor na 40 millions nga ñëw yëkkatiwaat ay oto jox ko chauffeur bi yorul 1500 yu mu lekk transporteur bi jox ko chauffeur bi di ko askiléré naan ko semaine téeméeri junni laa bëgg wala téeméeri 200 kii laa 300 mille laa bëgg nan ngay def boo ko jëlul sa moroom jël nan ngay def man 2013 laa am transport laa la wax aw ma aw ma tabax tabaxu guma am naa soxna am naay aw ma béy bu ma moomal sama bopp te tabax te te maa ngi te chaque jour maa ngi xëy de chaque jour maa ngi gont ko xëy léegi la xëy commencé Fuuta la Golere laa dëkk fa laay jógee yoruma laa la wax ni sama kër ñi ma xam dinañ ko xool en dinañ ko gis en direct. dépense bi nu muy demee. dépense comme man dépence dépense man ba may nekkee apprenti ba léegi damay joxe dépense ñun dañuy joxe dépense rek. duñu xalaat bëgguñu kër gi am benn problème boo gisee cate problème yi chauffeur yi jànkonteel ñaata chauffeur ñoo nekk fii Louga liggéeyuñu amuñu permis transport bu ñu xëyee fii la ñuy ñëw taxaw fii la ñuy ñëw taxaw di ab ay 1000 francs di ab ay téeméer dajale ko ba am ci dépense Macky Sall ñoo ngi lay ñaan ngir yàlla ak rasulillahi moom rek lañ la ñaan yow kese lañ la ñaan ñun chauffeur yi dimbale ñu te yàlla rek a tax amuñu luñ lekk amuñ luñ naan ñun moom chauffeur gisu ñun chauffeur transporteurs yi gis nañ seen bopp ci Macky Sall mais chauffeur yi ñun chauffeur ñi yor permis ñi yorul oto ñun gisaguñu suñu bopp ci état Sénégal du Ablaye Wade du du du Macky Sall du du du du du Abdou Diouf du Senghor. chauffeur musu ñu wax chauffeur moom moom lii nañ ko jox lii chauffeur yi amuñu dara waaw maa ngi nuyu ñëpp nag di siyaar ñëpp di jéggalu bu dee dafa ñaaw ok amal jàmm ah. Ah. Euh, papa yow tamit nga ne dafa am loo ci loo ci bëgg wax lan moo ci sa man kaa li ma ci wax bariwul maanaam euh, transporteur yi chauffeur moom teguñu ko fenn li ma ko def da ngay pacal ba mu neex la nga sànni fee xool xale bu ndaw dina am benn responsabilité ay xale yu ndaw romb naa lool damaa dawal ba moo ma tax a mel nii dégg nga dañuy fekk xale bu ndaw buy doog ba bëri ci yëkkati oto jox ko magum jëmm du yorob oto di caaxaan wala muy fo ay njaboot la bàyyi say moromi doom ci kër ga. dégg nga wax bi kon lii bu la ko joxee da nga ko respecté xam lii nga yor mooy lan nga teg ci yoon li ñuy wax sawar sawar sawar defuñ dara ñu koy def ñu ngi ci kaw tali bi gendarme yi ak police yi. mooy ñu sa wër jàmm mooy ñu leen salaam dañ lay tooñ wax la lu neex boo waxee ñun ooyee am da tani lanu yooyu yëpp ñu ngi koy jànkoor ci ko tëri luñ ci man soo demoon tey ma jàppante yow bu ma dikkee ci brigade bi mun maa am dëgg mun ma tooñee ba tooñee ba te duñ ko nangu lu leen neex lan may def lu ma ci man waaw loolu mooy tradition bi nag képp deful dara yow nga ci li nga xam ne moom la état wax wax ni euh, ko amul ñaar fukki at ak juróom waroo dawal woto ndax ànd nga ci kooku dëgg ma kooku mooy li ma la wax transporteur yi man xam nga magum jëmm laa yor naa say moroom man tey ji bu ñuy embauché duñ ma embauché xale bii doo ko bëriwee nga xam ne lu ko sant mu def ko moom la ñuy embauché nun mag ñi fee la ñuy teg placé ñu fee duñ ñu nangu embauché ndax la goree nangu man duma ko nangu man kenn du ma utilisé leneen nangu mooy maanaam tey oto bi day ñëw fii xale bi kii xale bu ndaw la yorul benn responsable yorul jabar yorul doom mu ñëw nga embauché ko moom la nga koy sant bu la neexee ne ko téeméeri junni semaine téeméeri junni nga ma indil wala 400000 man boo ma ko xëy du ma ko def damay lànk loolu kon gone la ne embauché ba fi mag ñi. da ngay bakkan yi ngay. waaw lu leer la mais léegi yow nga jël oto bi jox la ne la semaine bi da nga ma andil da nga ma andil trois cent mille ngay xale bu ndaw léegi yow li ngay dawal yow mënoo foo jaar da nga da nga dawal oto bi waaw ndax dan laa sas ne la nangam ngay andi soo ko andi bu semaine jotee boo ñëwee ñu jël bi yow woo sa morom jox ko mu nangu loo bañ sa morom nangu loolu moo fi am. dañ ko bëgg a tere ak Versailles yi nga nekk chauffeur nekk ci ancien ndax d'accord nga. Versailles porte bagage d'accord mu parce que client buy dem yor sa bagage il faut nga teg mu tege ci porte bagage bi wertaay moom d' accord naa ko mais d' accord uma bi 23 heures bi d' accord uma ko d' accord porte bagage dañ man laa wax de ak keneen kenn ñe xa 100 pour cent yow li ma la wax lan lay wax te loolu moo ne man na noo dindi wertaay man kooku d' accord naa mais porte bagage ak 23 heures ji ànduma tey d' accord uma ci ëllëg man waaw man maay Madieye Fall dëkk Louga sanc ba siddu quoi bon tukki naa léegi chauffeur laa a léegi chauffeur nga Modou Modou nga. waaw waaw nga ñibbi si si réew mi lu ko waral. man j'étais en France nekk naa France dem naa fa fu bu ne gis naa ko ci mais gis nga suñu route France village ñoo koy dëkk kaw ñoo koy xam nga lu toll ne fii lu mat ñaata oto fii jaar oto camion bu ñu jegantee sax da ngay laalante ah. mais loolu lépp ci ñàkk kii la moyen la mais nañ yokk tali bi suñu bëgg bëggee accident yi wàññeeku buñ ko yokkee bu ko defee bu seere ci beneen voie bi nga dem sa yoon mais li ñuy wax lépp chauffeur chauffeur Sénégal jàmbaar lañu parce que fi nga xam ne jàmbaar lañu mooy da ngay gis boo xam ne ah bi ñu lay jox maa da waaru yaa ngi wàaji sa kër ay problème yoo xam ne kenn xamul nu mu demee fay ñu chauffeur fay ñu dara ah kenn ku ne nga bëgg a ñëwut loo yóbbu sa kër ah mais bëgg bëggee jël ay mesures ay mesures ba la ñu koo jël dañoo war a waxtaan ak chauffeur si ah ñi ñi mu ñu taxaw sur la table wax ak ñoom mais taxaw fi jël say mesures la neex xoolal maire bi fii lañ ko wàccee borom bagage yi fii lañ ko wàccee ah. lañ jël wàccee waaw ne ko léegi doo dem léegi kii ñetti fan mi ngi ko def fii tëdd fii xam nga loolu ci mag magum jëmm ah, ñaaw na xoolal ma nga nee bagage yee ne ko mooy ñëw fii wàccee ko ah biñ ko wàccee oto bi wàccee ko fi te mi ngi ni trois jours mi ngi fi man jéem naa arrêté horaire Touba bi pour mu jéem koo yeb. maire bi ñetti fan mi ngi fii Louga tëdd mi ngi fii ay bagage ma nga ne gis leen bagage ya xam nga loolu du yoon mesure boo koy jël da ngay xool ni ngay jël mesure ba pare waxtaan ceeg doomu aadama yi ba pare waaw mais def lu la neex taxaw fii ah naan chauffeur chauffeur chauffeur chauffeur mais accident day il faut mu am parce que accident bu ko bu ko nit créé wul ab bàyyi ma créé ko wala dara parce que ñun bundi boo dee julli rek xam ne yàlla li mu bind kenn mënu ci dara waaw waaw te ñu wax ne nag nañ jàppale chauffeur si bàyyi sawar si nii sawar si ay borom kër la ñu dooleel seen i dépense di joxe waaw jàpp nit ñi sonal leen wax wax wax wax la ñu war a wax yëppoo nan yokk tali bu ñu bëggee accident yi manqué xam bu ñu yokkee talibi bi dootul amati waaw waaw maa ngi leen remercier kàddu yi am na solo merci beaucoup jërëjëf sant ko bu baax a baax jaajëfal ko ci kàddu yi am solo yi yaakaar naa ni eh, waxtaan wi leen Dakar live daal di tegal amal na leen solo ndax li ko waral itam eh, dañoo daal di ñëw ci ñi nga xamante ni eh, ñoom ñoo di chauffeur bus yi ñëw itam ci ñi nga xam ne ñoom ñoo yor Jakarta ñëw ci Sénégal yi nga xamante ni itam ñoom ñooy dox gis ngeen dem nañ ci mécanicien yi laaj leen ñoom itam wax nañu seen kàddu li nga xam ne moom la ñu xalaat kon na leen solo yéen ñi doon teewlu bi les reportage ñu ñëwoon fii baax jaajafal leen dégg ngeen euh, wallu bi nga xam ne moom la chauffeur yi di woote euh, ñenn ñi ànd nañ euh, ci grève yi ñenn ñi ànduñ ci waaye tamit porte bagage yi nga xamante ni ñi ngi ciy àddu nee nañ d'accorduñ ci waaye itam d'accord nañu ci Versailles yi nga xam ne wax nañu dañ koo bëgg yëkkati kon nag mbokk yi jaajëfal leen rek jox leen rendez-vous ba ëllëg ci beneen jotaay jërëjëf